ah mbokk yi euh, sant naa leen gërëm naa leen jox le président Bougane yaa ngi sa biir gox yaa ngi sa biir kër ndax tey bi ñuy ñibbi ndar day ànd ba suñu ëttu ndar kon le président Bougane yaa ngi sa biir njaboot man nag mënoon ma fee wax lenn loo xamante ne rek ëpp na lu ci jiitu jaar. xanaa di la wax rek kontaan bi nga xamante ne tey am naa ko li ma xaw a naqadi rek mooy am na ay kilifa ay mag yi fi ñëwoon ci ngoon bi xëy na toogaay bi su koon yàgg seen bi tuuti kon ñu ci may sant nag kenn ki nga xamante ne wax dëgg neex yàlla kilif léefam waroon naa tax mu bañ a yegg si te mu yegg si tey ñi fi nekk ñi ñëpp yëgalu ma leen parce que defe naa bi ñu may woo boobu bëccëg na diggante bi kenn mën a fee mobiliser kenn mm-hmm. mais lii rek firndeel leen wax dëgg neex yàlla bi waaye nit ñi xam nañ ci yow cofeel lii daf ko firndeel li ngay def ci wàllu social nag yàlla suñu borom moo ko fa dafay yàllal ko yàlla ah ci beneen fànn bi nga xamante ne maa ngi ciy dox muy wàllu bàjjanu gox tey woowu ma fi benn bàjjanu ndax yëpp yi xam na te ki ne day ñëw xamoon ni muy ñëwee wax dëgg neex yàlla am na ñoo xamante ne mënoo leen ci kii mais ci turu bàjjanu gox mi ngi yëkkati suñu reconnaissance ci sama voix di la ko jox ndax yàgg nga ñoo plaidoyer yàgg nga ñoo ñax yàgg nga ñoo jooyal mën naa ne tey bu ñu demee ba am yenn faveur yi wala ñu am fenn fi ñu egg wax dëgg neex yàlla Sébédia joué na ci am solo mm-hmm. loolu au nom de toutes les bàjjenu gox du Sénégal jaaree par la présidente nationale muy Ndeye a Diallo boobu cofeel ak boobu nuyoo ko jox ak boobu reconnaissance di la wax ne yaa ngi sa biir xol lépp loo xamante ne nekkoon na sama jot a jaar wax nañu lu am solo dama lay bàyyi sa njaboot. jërëjëf association benn bi du bali. waaw. eh na gaaw na gaaw nga démb bi. incha moom sama frère la mais sama gars. waaw mais bàyyi naa sëriñ yaa ngi ma dem yéen a nag bon li tax ñu teew fii dèjà moom sama sama xarit la aussi sama yaay la aussi suñu bàjjan parce que pas pour ne ñu ñu def ko bàjjanu bopp parce que ñun ñuy dugg si centre de santé benn def naa fa sept ans bénévolat sept ans yooyu nag moom la moom laa àndal bénévolat boobu li tax sax mooy génn si centre de santé benn engagé wu si nag ASP d'une manière bénévole moo tax ma ma xaw a traçé sànq sànq bi parce que tamit balaa déglu si waat réunion laa dund laa déglu laa ñu waxee génération sénégalaise dañu war a gëm seen bopp. je pense que si tur boobu noonu suñu suñu suñu mën jëlee parce que dañu fekk ñu gëm suñu suñu suñu mu porté. image boobu noonu mu porté ce nom là mooy jàpp na rek ñun daf ko porté au rek du ma wóolu keneen wala du ma ànd ak keneen du ma def nii wala lépp lépp lépp dama mën naa ko nekk moo xamante ne nii day nekk yow da ngay xam yaay kan xam say parents xam fi bokk te fi ñu bokk ñu Grand Dakar taaru Grand Dakar bi lépp lu a taaru dañ koy def parce que loolu dañ ko doon dañ ko doon naaj bi mu toog la wax ne yow say say say doom lañ suñuy yëgee seen biir même bu ñu romb sax fekk ko moom mu tànk ñu ngi ñu ñu xaar amul protocole amul amul dara sax moom suñu suñu suñu la. dëgg tamit lay remercier sama muy muy

Fadiane. depuis 17 heures. ñu ngi toogoon nañu di xaar. asalaamaaleykum mbooloo. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen sant. di leen gërëm. di gërëm sama doomu ndey ji ñu seet si tey. boo gisee ba dugg fi man conseil municipal laa ci mairie. kii suma mag la. kii maa moom ay doomi ndey lañ mais nit ki muy def lu baax il faut nga toog wax ko kii li muy liggéey loolu métier yi presque ñoo liggéey loo Grand Dakar heure bu ne ñu koy woo kaay def lii kaay def lii ba ñun sax ñoom dañ koy dañuy àndaale moom kon nag ma leen lim ak sama càmmit waaye buga yàlla waroon na laa may ba nga egg ba sama borom kër sama borom kër rek aw lal ba tànkam baax euh, mënatul dox ba dinu gis mais ba tey jii da nga jël ba ne kii yàlla ko yàlla jox réew. Seydina Mohamed ak su ma jógee. ba tey. ni ko xale bi waxee mu ne ko ki ko jël en charge dañoo bëgg a xam ay mbokkam sama jëkkër ne kii li muy def yàlla na ko jox li réew mi parce que li muy dimbale yàlla na ko yàlla dimbale li nga bëgg yàlla na ko yàlla defal bu dee def lu baax ñu seen xol yi sedd rek yàlla na ko yàlla defal ci man magam ay xarit la ñu bëgg nga xamante ne magam day ñëw sama xew damay dem xew loolu fa waaye yàlla na ko yàlla defal jàmm li nga bëgg yàlla na ko yàlla defal bari fu mu war a jëm fii rek la ñëw soo ba léegi dafa nekk ci ay yitte te yitte mooy yittey askan wi yittey askan wi nag askan wi yëpp ci bokk donc ku ci nekk dafa cee xool li nga xamee ni mooy sa sa nga def wareef nga ca des bàyyi ko yàlla euh, président Bougane soyez les bienvenus ñëw nga fi nga xamee ni mooy xolu Grand Dakar ñëw nga fi nga xamee ni mooy këru sigid sur le plan politique de Grand Dakar ndaxte yàlla def na képp ku ma safalu ci dëkk bi képp ku fi ma jaar nga fi baa nga jaar sama loxo nga falu ci dëkk bi et jeudi bi ci ko ndaxte xëy na ñii ñoom Ousmane sumay doom lañ waaye dugal nañ la fi nga xamee ni bu fekkee ni fii ñëpp yi daan jaar ñu ngi koy jaar yàlla na ko yàlla nangu bi shahidati Moustapha ndaxte yàgg nga fi am ay soppe te gisuñu la am na ki nga xamee ni jiitaloon nga fi mu doon biral léegi ni ma contacté ma ne ko biral man am na yenn yi nga xam ne du ma ci dugg kii dëkk ji ku fi xool maal fii bi maa ya, la fa ginnaaw yàlla yooyu les mbàkk yu fay ñoom ñëpp maa leen créé en toute pièce parce que le maire qui est là actuellement donc kii muy suma rak ñoom ñëpp ñu yaroo ñu nampatal leen ci la seen politique te seen politique du dara lu diplomatie modeste boo ko amee mën a uuf ñëpp ñëpp uufoo la ndaxte mënoo sa dërëm wala sab làmmiñ jëmale ko fu ne waaye sab jikko sa jëf mën na yegg fu ne sa jooju jëf jooju moo la yóbbu fu ne beneen bi tamit nga doon suma goro ndaxte sa soxna yàlla na ko yàlla yóbbu àjjana firdaws waxuma la yaakaar waaye am na ci yàqiin ndaxte imaam a ngi nii toog jigéen ji sëy kenn moo ko mën a garanti mooy borom këram te wax dëgg yàlla ñun ñu doon baayam gërëm nañ ko xamoon nañu cofeel ci moom bu muy day nii buñ koy ngénte ba tey ba tey ji ndaxte moom ak suma benn doom bi moom ñoo maase moom ak euh, pend bi nekk au Maroc moom ak sa soxna ñoo maase une semaine la ñu rawante donc loolu lépp yàlla def ko fi mu doon cofeel ba am na fi xale bu ñu tuddoo kii bugg gisee tey jii du yaakaar ni léegi waali la tudd waaye buggaa la boo ko gisee du ñu yaakaar ni yaa jur léegi ndax quelle ressemblance donc loolu lépp muy coppeel boo am ci kër li ngay doon du koy jëf yàlla rek a tax nga koy doon ndaxte nit ki dafa am li nga xamee ni danga koy jëlal sa bopp la ca des ko jox li nga xamee ni nag moo koy saraxal moo koy dënk du nekk suñu ko te incha allah lii wóor boo wóor xaw ma kañ la xaw ma fan la xaw ma naka waaye bu fekkee ni sax noflaay la incha allah li ngay ci réew mi yàlla la ko def loolu moo ci am solo ndaxte mag ñi nee nañu la ca ëpp solo amal li nga xamee ne mooy sataar biir ak biti yàlla jox na loxo bëgg nga ak dimbali askan wi loolu nag du sax pexe yéene rek nga ci am kooku pexe suñu borom bu fekkee ni mooy liggéey rek yal na ko yàlla indi mu sedd buy ci barke yonent bi am nañu yàqin waxuma la yaakaar yàqin wóor bi li nga nekkee boo ko bàyyiwul xaw ma tey la xaw ma suba la waaye tu seras à la tête de ce pays ndaxte maa ngi jóge ci njabootu Cheikh na Cheikh Saad ndaxte ci laa naanoo ñoom ma doon gàmmu te yaakaar naa ni newoo fa yónnee fa waaye nit ñi toog nañ ñu waxtaan ba egg ci yow ndaxte am na benn leer bi nga xam ne ni man maa ko yóbbu man seen ci seen fële mais malheureusement rek ko yéen ñi xam Chérif bu ma waxee ma ne ko non j'ai pas été yóbbu waaye gis nga tey jii di ah, yàlla doon tey jii ba gàmmu gi bëgg démb la woon mu doon wax sant na yàlla yokk sutura yàlla dolli taxaw bi nga xamee ni ñu fi jaar ku ci ne fal naa la defar nun la ba nga yore gox ñi yàlla ko yore réew mi parce que ñi fi gars yi bari nunu lool mais Khalifa m'ont dit njëkk a il a parlé devant Zamara en 1977 ce qu'il est à 80 c'est moi mais kenn duñu ko je suis là dans mon coin mais yàlla na yàlla moo tax.